département bi lépp lu fi xew na koy ne sëñ xaadem jigéen ay mottali kër yow yaay mii yaa mottali sama kër nijaay ga defar ko tubaarkàlla macha allah ba képp ku jóg rek danga bëgg a dugg kër sëriñ xaadim Fall dañuy wax ne sax monsieur le maire gi dañ koy teg fee mais taalu bépp sëriñ Ba Bamba di saalif si sëñ Bàkke Madina sax lool ci Daaru Xuddoos nga ñëw defar kër ga tubaarkàlla macha allah tey lettre bi dafa ma euh, am solo ci man ndax dama kontaan nga di ko jox sama sang ma sa ma ca wërsëg ba saaxoo boo gisee jot amut waaye tey gis nga département bi yëpp gis nga nit ñu baax ñëpp kenn ku ne tey taxaw na si kër gi am taxawaay bu mu fi taxaw te yow lépp yaa ko waral kon nag lii day dolli ab taxawaay day dolli pas-pas ndax sama maam nee na boo toogee ci dëkk ba yàgg da ngay xool ba xam nu la waa dëkk ba def tey boo bu subaa da nga xam waa dëkk bi fan lañ toll ci yow tubaarkàlla la ma saas ma coro fay sama nijaay ca tëñ ca ndee la sama xol dafa sedd guyu guyu guyu sëñ xaadim na moo la jox lettre boobu ah, ah, bii lettre nag moom bii lettre nag moom dengen nan ris may mama tok tay tey leetar yi lutax ma diko joxe sama sanga la ma macha allah kera ba mu commencé dafa ñew ne ma yefi sey ma and ak mom nak te lépp loo xamante ne la ma macha allah war ko ci sax dama kon jaxate bi dugg na si bur waa damaa madame Mbacké Sadaf mi président Macky Sall falal nuko ci département Mbacké fi ci commune Touba ndax xam nga lutax ma wax lolu xam nga lutax ma wax lolu jigen yi ci département bi dafa am ci ñom solo nga jaar ci Sadaf bi sera fort sans défaut nga def ci la nga ci wara def xam nga man nit laa koo xamante ma defal ko defal. kon ku barkaal la macha allah bu sa daaf jeexee nga retraité. kenn jëlewuñ la fa dañ laa retraité. say fonction jeex. say fonction jeex nga ñëwaat nag war a nekk ci département bi liggéey fi président Macky Sall président Fall Macky Sall falal madame Macky Sall. mu yaa ngi ci la ji. yaa ngi ci yaa ngi ci nag yaa ngi ci màggal lu xew yaa ngi ci. yaa ngi ci monde gaare yaa ngi ci ndawtal yi. kon ger bi yow. tubaarkàlla macha allah boo ñëwee fekk ma sama kër sant sama sant bii. bu ma sant ma ci wërsëg wa dama lay wax lu baax man fu ma toll dama lay wax lu baax. ci maanaam benn yoon laay ko parti bi ci laa nekk lu ma ci waay jox sama mérite la ndax sonn naa waaye dama cee am ay xarit am ci ay doomi ndey am ci ay confidence te yow yaay tedd sama confidence ak yow da ngay tedd ba kon nag tubaarkàlla macha allah lettre bi motax mu duguma ne ci soxna sa day da nga gis ñepp li ma la eh, wax rek nit ku ne bisam moo liggey liggéey travailler eh. tubaarkàlla macha allah bis bi ala dawmeuna mewu na. waaw xaaral bu ñu joxee ba pare rek nga wax am lettre sa keng ni Serigne Ndiaye Diop jox ma te nit ma ci ministre de la santé madame Mbacke xam nga tiisu bi de tubaarkalla macha allah jox ma lettre bi ministre de la santé Serigne Ndiaye djel ma mané xemes ngom xam nga li mom pirxa du pir xeb faya faya du pir xeb neexi mbaax pir original la ministre de la santé nun fekk kontaan nanu tubaarkalla macha allah bu leen ministre ngay ministre bu jigéen yor santé ñu nekk ci département Mbacké nga fal Serigne Ndiaye Diop lu xew mu wax la ko muy muy def transmission bi nag ndax boo nekkee ci dara da ngay def transmission transmission bi nag moom nga moom nga matal may leen ma ma yeggale sama wax ji transmission bi Serigne Ndiaye job mom nga matal kera ba ma la fekkee op ëpp ci ci ci ci mère ba jox la lettre bi nga ne ma dama contane lettre bi dana jall ci ministre de la santé la matal nga ko nee ko wa département Mbàkke commune Touba ñong koy sant te talal ko loxo nak ñong koy talal loxo nee ko na recevoir au département bi ndax bëgg nañ ko te bëgg nañ mu liggéeyal fi président Macky Sall te mooy sunu ministre de la santé 90 pour cent ay bàjjanu gox lañ madame Mbacké ngi nii sante lay nekk kon tubaarkàlla na recevoir waa santé na recevoir nit ñi ndax fonk nañ ko am nañ ci moom yaakaar ndax lii nag kenn mësu koo gis barke Serigne Touba Mbacké ministre de la santé Marie Xemes barke Serigne Sourlaay tubaarkàlla maasàllaa biir xala ko jox joxu ko borodé pir xale ko ak ambulog mënoon naa joxe pirxa bi kese nag barke Serigne Touba Mbacke mënoon naa joxe pirxa bi kese te bañ a joxe ambulog waaye nun daal masatama ci wërsëg wa neewoon naa la bis bi dana ala daw mi barke Serigne Touba Mbacke lay tollool jama ñun danoo kontaan ndax ñii rek lan am man nag dama bëgg li may wax ñu girit ko ñii lañu am ñii toog fii sama doom jànga ne sarse mission Bintu Diop tubaarkàlla masàllaa di di sarse mission ci cabinet ministre de la femme ñu bokk sarse mission bi muy man ak Bintu Diop ñi tubaarkàlla ñun ñëpp ñuy nekk ay sarse mission bëgg fàllu lii sunub cër la ndax danoo sonn ci parti bi di ci liggéey kon nag bu ñu ñëwee jox ñu loolu du sunu sens sunu mérite la mérite la boo xamante ni dafa war a ñëw ci ñun tubaarkàlla jamaam am